bismillah inna wàll yàlla asalaamaaleykum axlulam seen doomu day organe promoteur la waaw waaye nag mujjul organiser benn benn combat ndax coronavirus moo fa jaar moom rëg-rëg moomay gis nañ ko de ci vidéo yi nag mu nekk si route national bi nag di sotte ko ay galaaj nag di waajal combat ak guy gi de kafu ci réew ci ñi kaful kay mooy mbëri ak écrit yi waaw waaw suñu lambu door kese kese kese lañ teg bët de waaw waaw quatrième pas ñu dem Pape Thialis borom Leewtoo production mooy wax ci combat de bi lobby yi bëggoon foqati nag moom Pape Thialis moomee nee na semaine bii lépp dina mën rek avancé dinaa ko génne jox ko mbër waaw moom Pape Thialis dëggal na ko de dëggal na am naa yu lobby yoon yu ñëw yàq combat yi dëggal na ko de baax baax waaye moom Pape Thialis moomee nee na kafu ci réew ci ay combat am déedéet nee bis bu paree nag ci kenn moom Ibou Sène alias Petit Production baptême de feu bu tàng jër fële sa stadium Iba Mar Diop nee ne saison 2020 2021 bi moom alliance petite production mu ngi waajal de mu ngi waajal combat yu rëy combat yu jéggi dayo la bëgg amal cinquième pas ñu dem Balla Gaye 2 le de Guédiawaye Balla Gaye doomu Double Less moom Balla Gaye triple less ñu la may wax ci moom de Modou jaar na fi Yékini jaar na fi Tyson jaar na fi ñu ne moom Balla Gaye 2 moom moo njëkkat daan kii di Modou de waaw moom tegalee nag de bàyyi ba mu doonaat roi des arènes mu jàppaat deux pôles ñu ne ba mu jógee foofu noonu nag moom Balla Gaye 2 moom da moo nekk premier roi des arènes fële ci géej waaye à de vingt six ans la ko doonee de kenn du Balla Gaye 2 moom Lamine Samba bu TFM mooy wax de de nee na Balla Gaye 2 lu mu deful ci làmb carrière am daanaka lépp mat waaye nag su demee ba bàyyi làmb te deful lii non kon du kontaan à 100 pour cent de moom Balla Gaye 2 daanul Eumeu Sène ndax musul gëm ne Eumeu moo ko mën de te Eumeu Sène moo ko gënal moom la lion de Guédiawaye yi Eumeu Sène moo ko mujj daan le 5 avril 2015 da woon moom moo mujj daan kii di Modou Lo le roi des arènes le 13 janvier 2019 sixième pas ñu dem Khalifa Niang président écurie Tay la ñu dénk CNG bi ndax ñoom ñoo gën a habilité ñoom ñoom ñoo mieux pour diriger li nga xam moo di CNG bi gannaaw Alioune di fiy jógee moom Khalifa Niang ba tey parole nee na dañoo war a sax jubali nag ci li nga xam ne moo di fédération lamb ji a xalaat ci loolu le moom Double Tyson gannaaw ba mu fi bàyyee kii di jamaïcain dem di war a bëre xoyantaan nag ci beneen compte promoteur moom jamaïcain moomee mer na ba fute de mer na ba fut nee du sax xaar day dem porter ko nag ci kanamu procureur la su bëggee ah loolu droit am la pour mu yóbbu ma si yoon amul benn problème mais amul lu ma lié ak moom loolu nag damaa bëgg moom Jamaïcain mu xam loolu la septième pas ñu dem écrit kaay baax ba ca Tëngéej ñu ne olaame waaw wan nañ seen bopp bu baax a baax a baax quinze victoire trois défaites suñu laamu door mi seen kanam nii nii nii noonu la ko suñu laamu xamlee moom moom caaka fay limousine Ibou Ndafa numéro deux Albouri ñoom ñoo ñëw ñëpp ah, dañoo année balance de dañoo année balance ñi année na kontaan naa ci goos yi lool lool a baax a bi moom satisfaisant la jalgati làmb comme ni ñu ko defee jalgati làmb tey kan moo fa nekk euh, ca pàccali Boy Niang 2 le fils de De Gaulle moom Boy Niang 2 mooy wax de promoteur baa ngi naan ko mooy wax nag nee na ko Boy Niang 2 kaay ma kaay ma tëgg sa combat ak Balla Gaye 2 loo bëgg ma fay la ko moom Boy Niang 2 di ko tontu mu ne ko soo ma doon jox un milliard du ma war Pape Thialis xalaatu ko ci euh, kër àdduna mbër day gore waaw waaw yéen a kaay Papa Pëng yéen a kaay tey maa ngi koy may saada nitu dëgg bi marché bu mag bi jëlal yaay borom seen doom day organe moo fi jaaroon dem naa wa